ndax bu mu ñëwee ba tey mu ngi am volonté Modou Diagne Fada di jàpp ci liggéey bi vraiment pour pour gën a xeex ba Sonacos place bi nga xam ni amoon na ko aujourd'hui mu occupé mu occupé waat ko yàlla na ko suñu borom defal ndam di lancer aussi euh, ndax loolu na permettre tamit campagne bi jeunes yu bari jurbel liggéey ndax actuellement ñu ngi toog mais ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom def stock huile bi aussi ñu jàppale ko aussi ci concurrence bi jógee bitim réew di ñëw parce que bu ñu liggéey ba pare te accompagne ñu mu jaayat aussi dañuy am ay problème ndax daaw rek boo xoolee parce que 30 000 tonnes nekkoon stock bi mais euh, ci d'après mes informations lu ci bëri dem na. éviter aussi chinois yi parce que mënuñu subventionné sañuy gerte ba pare chinois yi ñëw di ñu concurrencer pour cela il faut tamit ñu mettre ay conditions de rafetlu 30 milliards yi nga xam ne jàppale nañu ko Sonacos mu gaaw génn aussi parce que bu ñu bëggee jaay xaalis bi day gaaw nit ñi aussi dañuy boo bayee ba toog heure bi da ngay sonn su fekkee xaalis amul gaawul point de collecte yi teel ñu leen taxaw ni ñu leen war taxawee finalement dañuy koy jaay ñeneen kon loolu aussi ñu ngi leen ci encouragé vraiment mu gaaw leneen li ñu war a wax aussi mooy euh, di wax aussi euh, Cissé solo wax na ko fi xam nga ñun man personnellement je suis de la coalition je soutiens le président de la République mais aussi tamit suñu wax nañu wax encore peuple bi ndax ñooñu fa tax nekk gis nga subvention yi ñu joxe monsieur le ministre il faut ngeen xoolaat copie collé yi foo nga ñëw nga indi ay réforme man personnellement man dama daan jënd gerte di dimbale ay euh, baykat yi ñuy bay mais ñu ne ma léegi da ngay jéem a bind entant tant que ma bind ñu may moo cinq tonnes moo baykat yëpp séddale leen ko mayaat ma 10 ma séddale parce que am na ñoo xam ne ñu egg fu ñu war a egg mais ba may dem di jël gerte gi ña fa nekk danaa la boo buggee xaalis ñu jox la loolu moo fi nekk bu ñu ñëw fii nag farak nit ba duñ wax lu ci terrain bi lii dañu ko wax pour dimbali la pour que ngeen xoolaat façon matériel agricole bi yu ci bari dañ koy jaay te yàlla rek a tax may wax ndax ëllëg sunu borom dina may yee ci li may wax lu mu doon lu mat a bàyyi xel ànd ak nit nag li lépp lu tax ñu di ko wax pour ngeen xoolaat ko ndax mu demaat ci ñu ma war a dem ñu utiliser ko parce que ñu bari ñu ngi leen di jox nga gis liste bi ñu ci bari man maa la ko wax fii maa ko teewee fekki ko ndax dama man man ku may fekk may jaay gerte lu may wax moo koy doyee pendant ce temps ces pauvres gens mun ñu am accès fi ñu tant que député su ma ministre may may 10 tonnes mayu ma ko pour man dama ko may pour ma joxaat ko askan wi ñu bayaat ko Sénégal avancé nit ñi mën a dem je vous remercie lu ñu ci wax yàlla rek a tax ñu ak avance avance kon donc ñu réformer waat loolu xoolaat subvention yi ni ñu koy joxe xoolaat encore début bi chaîne bi am seen fit nag lii nag fit koy maye parce que politiciens yi ñu ngi ci biir sëriñ si ñu ngi ci biir ça la vérité ay ñaa xam ne ay lu ñu leen tudd lépp a ngi ci biir il faut ngeen jël seen courage xool ñi bay ngeen jox leen ko wàññi ñu koy jox bi ñu ko joxul dañu koy dem ci ko jaayaat nga bàyyi ñu nekk ay commerçant